ñuy dalal Abdou Khadre Gaye njiital ONG EMAD EMAD mooy entente des mouvements et associations de développement ñu war a wax sax ci ànd aar aaru ci Covid 19 bi nga xam ni mooy mbas mi laal Sénégal sëñ bi Gaye ñu ngi lay nuyu am mbégte dalalaat la ci matinalu réew mi. waaw maa ngi leen di fay def naa mbégte bi dañ ko partagé. Mm-hmm. ni ma ko waxee ànd aar aaru ci ngeen di yëngu muy ab euh, projet bu ngeen tëral yéen waa EMAD ngir euh, gën a sensibiliser euh, tànn ci ay. gox euh, muy euh, Dakar euh, sud centre ouest Guédiawaay Pikine yëmbal ak Mbaaw alors ndax mun nga ñu ñëwaatal bu baax ci taxawaay bi ngeen nara am ci mbas mi di Covid 19. waaw jërëjëf projet ànd aar aaru EMAD moo ko taxawal ànd ci ak ONG plan international. programme boobu nag dañ ko lal ngir jox jokkoo ak askan wi waxtaan ak ñoom assurer leen euh, formation ci biir xam-xamu coronavirus pour ñu gën ko mën a xeex soo xoolee programme bi euh, mu ngi laal euh, juróom benn fukki quartier ci Ndakaaru soo xoolee quartier yooyu niñ ko tànnee yenn yi ñu ngi nekk ci district yi ni ñu ko waxee muy ay pencu lébu ay village traditionnel lébu ay quartier yu mel ni cité bisaab Euh, yu mel ni Grand Dakar ba ay quartiers yu nekk fële si Jidda Caaroy kaw ca Géejawaay ci Yëmbal donc suñuy wéyal programme bi ni ko bëgg a doxalee moom mooy euh, quartier bu nekk dañ fay tànn fukki ndaw ñu nekk ay mag ak ay xaleel soo ko xoolee day nekk juróom benn téeméeru euh, nit yu ñuy former si juróom benn fukk quartier yooyu jox leen xam-xam ci feebar bi wax leen feebar bi mooy lan naka lañ koy moytoo naka lañu ñu war a taxawee suñu bopp ak suñu askan ndaxte dañu seetlu ne ñàkk xam mbir dafay gaañee te lu ëpp liy gaañ ci feebar bi di coronavirus mooy ne liñ ci xam bëriwul naam wante li ñu liñ ci xam ak néew tasaare ko ci biir askan bi ñooñu suñu leen formé ba pare ñoom ñooy dellu ci quartier bi quartier bu nekk nag dañ fa tànn soixante quinze ménages soixante quinze ménages yooyu ñooñu ñu former dañuy dem waxtaan ak ñoom pour former leen jox leen information bi mais suñu leen di jox information bi dañu leen di yóbbaaleel ay jumtuwaay yu mel ni lave mais ay jumtuwaay yu mel ni saabu ay jumtuwaay yu mel ni masque ndax dañu ne aaru moo gën fa faju te li ñuy aaroo ci feebar bi mooy di raxas loxo takk masque am benn distanciation physique bi nga xamante ne moom la ñuy am. xibaar boobu la ñuy tas. Mhm. su ko defee dinañu gis ne am na euh, ñeenti junni ak juróomi téeméeru ménage yu ñuy touché fii ci ndakaaru naam du dara wante ku nekk da ngay jëf fa sa kàttan yem ñaan yàlla mu barkeel pour que ñu mën a mucc ci feebar bi. Mhm. am na aussi euh, ay euh, WhatsApp yi nga xamante ne ay groupe WhatsApp yu ñuy installé district sanitaire bu nekk. comme que groupe yi ñu formé dafa am juróomi mag ak juróomi xale xale yi dañ leen di organiser en groupe WhatsApp pour que ñoom ñu mën a continuer di communiquer seen biir di communiquer wax ak waa district sanitaire ba nga xamante ne ñoo assurer seen formation di xool quartier bi lépp la fa xew ñu wax ko ñi nga xamante ne ñoom lañ ko war a wax plus maintenant ay page Facebook yi nga xamante ne nañ ko mettre en place pour permettre aussi le débat numérique puisque waxtaan bi bu nekk euh, direct face à face. Hmm. ndax dañuy tere dajaloo bi ñu ne nañ privilégié boobu su boobaa nag eh, waxtaan bi nga xamante ne dañ koy am de façon virtuelle. Hmm. via les les les les sociaux hmm. waaw lan moo waral ngeen tànn euh, juróom-ñaari gox yooyu muy Dakar sud centre ouest waaye Pikine yëmbal ak mbaaw euh, lan ma wutale yi gox ak euh, yeneen yi. waaw ndax xam nga soo soo soo seetloo feebar bi tey jii. dañu ne ñaari district sanitaire yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a euh, moom la gën a laal mooy district sanitaire sud bi ëmb euh, Dakar Plateau Médina Gueule Tapée Fass ak district ouest bi ëmb Ngor Wakaam ak Yoff moo tax ñaari district yooyu ñoom dañ ci bokk d'office mais mu am yeneen district yi ñu ci boole mooy yooyu nga cité parce que dafa am ay zone ci biir dakaar Plateau nit ñi suñu duggee ak Médina dañu naan fii de koom moo nit ñi soxlawuñu dara manqué wuñu dara taax yaa ngi nii batiment yaa ngi nii rien ne manque or c'est pas conforme à la réalité immeuble yooyu soo xoolee seen biir dafa ëmb ay quartiers yi nga xamante ne souvent dafa am lu bëri lu ñu waroon am te amuñu ko te quartiers yooyu euh, maladie bi mara détaillé su fa duggee mën na def ay ravages moo tax ñu ne ñooñu dañ leen di fàtte souvent ñun dañ leen jukki jëflante ak ñoom soo demee au niveau de la périphérie aussi et de la banlieue am na quartier yu mel noonu mooy cité Bissap bi ma la wax sànq mooy euh, soo demee Jidda Caaroy kow wala nga ñëw Géejawaay di nga fa gis ay gox ya nga xamante ne dañ leen fàtte carrément donc ñooñu ñu ne nañ fa dugg def fa suñu liggéey puisque ñoom ñoo ko gën a soxla xëy na am na lu fa àgg wante matewul lépp ñu ne nañ fa dugg nag jéem a xool naka lañ ci wasuloo ak ñun itam def ci suñu suñu suñu warugar. Hmm. donc quartiers yooyu ñu ciblé vraiment on l'a fait avec intelligence donc et je crois que euh, c'est des quartiers qui méritent vraiment d'être accompagnés d'être soutenus soo demee Dakar Plateau di nga gis Niayes Thioker di nga gis Rebeuss di nga gis euh, Ruqu Jinne di nga gis euh, Daaru Salaam ñu bëri dañuy dugg Plateau ba génn duñu xam ne loolu excité soo demee Grand Dakar gis Cité Bissap ah cité cité euh, cité cité bi nekk fii sur sur l'autoroute aussi dans à Hann bel hmm. donc ñooñu dañ leen di fàtte souvent et je pense que baax na leen di bàyyi xel daal. Hmm. alors hmm. gis nañu ne ministère bi bi mu tàmbalee ba léegi euh, nit ñi noppiwuñu ci di ŋàññ ni ñuy communiquer ñu bari sax wax nañ ne laalaguñu dëgg-dëgg askan wi maanaam euh, communication ci communauté bi dafa des yéen naka ngeen nar a doxalee ba xëy na jot ñooñu nga xam ne jàpp nañu ne kilifa yi joteeguñu leen ba léegi. waa je crois que foofu mën na am benn compréhension tuuti ndaxte euh, mbir mi dafa bett àddina bi. Hmm. Euh, dafa bett ñëpp. kon su amee ay flottement ci communication bi war nañ ko mën a comprendre. Hmm. Euh, bett bi la ak tiitaange bi ku nekk itam ak sa rôle. donc ñi nga xamante ne ñooy faj nañ faj techniciens yi war a gëstu nañ gëstu ñi communicateurs yi ne ku nekk dugal sa loxo ci anam ba nga xamante ne moom nga féete ñun nag puisque nous travaillons avec les communauté on va faire une communication vraiment communautaire dañuy bàyyi quartier bi wax ak boppam moo tax ni ma la ko waxee quartier bu nekk suñuy tànn fukki nit yooyu dañ ciy dugal d'office le chef de quartier ou l'imam dañ dañ fay dugal euh, d'office bàjjanu gox ba les relais communautaires yi nekk ci quartier bi dañ ciy bokk donc ñooñu ñuy tànn pour ñu wax ak waa quartier bi doomi quartier bi la donc quartier bi mooy wax ak boppam et su boobaa communication bi dafay gën a yomb. Mhm. si tu prends le chef de quartier l'imam bàjjenu gox bi ak xale yi koñ bi ñu dugg ci benn kër di wax waa kër ga danañ leen may nopp. Mhm. nañ leen déglu te li leen di wax dinañ ko. gëm uteeg ak boo jëlee woon ab Fatou Thiampale indi leen ka. Euh, du benn. Mhm. <laughs> du benn peut-être loolu dina am njëriñ mais njëriñu bii ma la wax mooy gën a mooy gën a mooy gën a sori mooy gën a mooy gën a àgg mooy gën a am njëriñ. Mhm. alors ñu des euh, ba tey euh, ci euh, wàll woowu lan ngeen yaakaar ni mën na doon njeexital wu safaanu surtout moom la ñuy xaar ci coronavirus mi bu wéyee ndax gis nañu ne ñu ngi insister ci distanciation bi maanaam sorante beeg yooyu te ko xam Sénégal xam ne nit ñi jaxasoo la ñu xam saafonte la ñu xam ak jëflante ci sensibilisation bi wan wàll ngeen jagleel lu ni waaw xam nga loolu yëpp dafa safaanoo ak li nga xamante ne mooy suñu aada ak suñu cosaan ndax gan gi nga xamante ne moom moo bett àddina bi dafa dafa daf ko bett carrément daf ko bett non seulement ba ci ay pratiques yi nga xamante ne moom la ñu wax ne mooy lu baax loolu la nit war a taxawee nit da ngay nuyoo dangay ngay joxe loxo da ngay saafonte da ngeen war vivre en famille communauté bi dafa war a renforcer wu et cetera feebar bi ñëw remettre loolu lépp en question ba ci julli jàkk yi ba ci julli jumaa yi et cetera donc loolu dina am jeexit bu mu bàyyi ci doomu aadama jeexit boobu nag euh, puisque peeguguñ ko à cent pour cent euh, xalaatkat yi xeltukat yi gëstukat yi dañ ci war a xalaat parce que nag y aura des des transformations décisives pour l'humanité transformation yooyu nekkal ko suñu société africaine yi war a war a war a war a préparer pour mu bañ leen a yàq pour mu bañ leen a euh, jaxase ndaxte nag distanciation bi moo tax ñenn ñu préféré distanciation physique. Mm. parce que on peut être séparé physiquement mais ensemble avec le cœur terme boobu la ñu préféré que distanciation sociale parce que distanciation sociale bi nit ki day daw moromam nit ki day ragal moromam nit ki day moytu moromam su ko defee dafay am fracture sociale loolu lépp nag je crois que il est temps que suñu borom xam-xam yi gëstu ci xalaat ci xam feebar bi fan la ñu jëmee moom suñu demee ba génn ci atam yan jikko la mën a yàq ci ñun ñu defaraat ko parce que du yàq rek wér-gu-yaram gi hmm. mais mën na yàq jikko yi mën na yàq sensibilité bi hmm. mën na yàq même suñu relation avec le divin hmm. déjà tu as vu il euh, beaucoup de querelles en cette période de coronavirus querelles yi nga xamante ne jaaxal na nit ñi les gens sont devenus un peu plus je ne sais pas je m'en arrête là pour ne pas abuser parce que j'ai pas poursuivi la réflexion à bout mais daal war nañu xalaat ci naka la nit di taxawee digganteem ak boppam digganteem ak mbokkam. Mhm. digganteem ak askanam. Mhm. Mhm. alors ci sensibilisation bi ak ci euh, li ngeen nar a def euh, ci ànd aar aaru wax ngeen xale yi euh, jigéen ñi góor ñi waaye mag ñi lana ci seen wàll mag ñu nga xam ne surtout feebar bi ñoom la gën a gaaw a lor gis nañu ne ñi mu dal ñëpp ñu ñàkk ci seen bakkan pratiquement ay mag la ñu bu weesoo ñi amee ay maladie chronique naka ngeen leen nar a boole aussi ci ci mbir mi dëgg la euh, je crois que mag ñooñu man li ma ci xalaat daal euh, mag ñi ak xale yi tuuti yi ak ñi am maladie chronique ñooñu comme que borom xam-xam yi nee ñu ne ñoom la feebar bi gën a sonal ñoom la gën a yàpp ñoom dañ leen confiner véritablement hmm. dañ leen gën a protéger dañu gën a bàyyi xel ci ñoom bàyyi bañ a leen bàyyi ñuy am contact direct bi ak biti bi ndax comme que ñoom daal foofu la feebar bi tollox ñoom nañ leen aarandi ba mbir yi di gën a leer comme que nag mag mat na bàyyi ci réew te ñoom aussi am nañu expertise ak expérience ba nga xamante ne mën nañu ko jox ci xeex bi ñuy xeex feebar bi je crois que débat virtuel yi ñuy ubbi yëpp mën nañ leen ci jox kàddu déglu leen laaj leen seen xalaat naka la ñu war a taxawee naka la ñu war a fegoo naka la ñu war a préparer même après Covid bi. Hmm. parce que xëy na ñoom vivre nañu ay épidémies c'est pas la première fois. Hmm. que suñu réew mi humanité bi traversé yu mel nii. Hmm. crise yu mel nii ñoom bañ ci tolloo naka lañ ko defee woon naka lañ ko xeexee woon. xalaat boobu dañ ko soxla ne daal nañ leen aar nañ leen confiner. nañu leen bàyyi xel bu baax a baax. Mhm. xëy na mooy doon laaj bu mujj bi EMAD yàgg ngeen liggéey ci wàllu sensibilisation communautaire ci yeneen i jàngoro yu dul euh, mbasu corona bi waaye mm. bii euh, ban wuute ngeen ci nemmeeku euh, par rapport ak yeneen jàngoro yi. waaw xam nga jàngoro bi dafa bett àddina bi dafa bett humanité bi nekk un adversaire invisible comme yeneen adversaires yi. mais invisible et inconnu. noonu boo parce que l'invisible peut être connu mais cet mm-hmm. invisible là est véritablement voilé et li muy révélé ci personnage ak personnalité am bi xamaguñ ko moo tax ñu tiit moo tax ñu jaaxle donc ci euh, ak jaaxare googu ak tasaaroo bi nga xamante ne moo am ci àddina bi xamadi googu moo ko waral. Mm-hmm. xamadi googu nag dañuy ñaax ñi nga xamante ne ñoom ñooy chercheurs yi commencé nañ ko dévoiler nank-nank. Mm-hmm. mais liñ ci xamagum doyagul pour ñu mën koo ñemeñ. waaw moo waral tiit gi. moo waral ñii naan nañ def nii ñii naan nañ def nele werante la. Mm-hmm. donc yàlla nañ ko yàlla na yàlla muril ñu voile bi ba ñu xam ko. Mm-hmm. maîtriser ko en ce moment dinañu mën a xëy na dund ak moom te duñu te duñu lor. Mm-hmm. ñu mën a dund ak moom te duñu gaañ nim ñuy gaañee tey parce que yii yàgg na am ci àddina bi yàgg na am ci humanité bi. mais c'est des épreuves qui aident l'humanité à grandir. c'est des épreuves qui aident l'humanité à faire des des pas en avant. donc euh, à faire les grandes conquêtes parce que grandes conquêtes yëpp ci crise lañu ñu génn. Mm. soo ko am espérons que cette crise là fera mal comme nous disons comme toutes les crises. Mm. mais espérons que suñ ci génnee dinañu am ay pas yu décisifs yi ñuy def pour l'humanité la communauté humaine tout mm. entière. ndax dund ak euh, jàngoro ji comme fi mu ne loolu la ñuy wax ba noppi euh, jéem a sàmm yi nga xam ne ci la sunu dund aju ci wàllu aada ak cosaan bien sûr ci Sénégal yaakaar nga ni mën naa nekk. si si mën na nekk mën na nekk parce que nag euh, on ne laissera pas ces cet ennemi li ñu ñu dicter ces lois donc en attendant que ñu koy découvrir mën na ñu fegu respecter euh, li nga xamante ne imposé nañu ko mooy séparé wu leen bu leen nuyoo bu leen dajale ci jàkk yi bu leen dajale ci marché yi mais l'humanité ne peut pas vivre séparée hmm. l'homme euh, l'instinct grégaire est naturel en l'être humain nit ñi hmm. tey garabam waaw nit demee donc ba xam ko hmm. dinañu mën dundax moom te ñu gaañ waaw parce que loo xamul rek da nga koy ragal. loo xamul moytu ko moo gën a óor. Mm-hmm. waaw mais soo demee ba xam ko nag di nga xam naka ngay dundeex moom te du la lor naka ngay dundeex moom te du la gaañ naka ngay dundeex te du la teqaleex sa aada. Mm-hmm. ak sa cosaan ak sa ngor parce que l'humanité ne peut pas vivre euh, on ne peut pas vivre confiné toute sa vie. Mm. waaw ah, bon même les guerres qui imposent certains confinements guerre yi suñ ko dépassé ba maîtriser ko am na benn liberté bu mu lay mën a jox. Mhm. donc je crois que li yëpp dinañ ko dépassé incha allah donc euh, ñun nag dañu gëj dund lu mel nii ci addina bi. Hmm. waaw àddina bi daf ko gëj a dund moo tax coronavirus bi donc euh, euh, nekk nekk nekk nekk musiba daal waaw nekk musiba bu jaaxal ñu lool lool hmm. lool lool parce que xamuñu ko. Hmm. depuis plusieurs générations on n'a pas vécu des choses jërëjëf yàlla mi dara tëwul yàlla ñu teggil njàqare boobu Abdou Khadre Gaye ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu réew mi jërëjëf jërëjëf. ñu yendoog jàmm kon mu doonoon njiital ONG EMAD di entente des mouvements et associations de développement ñu taxawal ànd aar aaru. Mm. di projet boo xam ni dafay jëm ci ay gox goxaat yu nekk ci euh, Ndakaaru. Mm. Euh, kon jëm ci sensibilisation communautaire nga xam ne ñu bari jàpp nañu ne fi mu ne moo manqué ci mbas mi moo tax xëy na mu am fu yëf yi sooxee. Mm. Euh, kon moom la ñu doon dalal ci suba gi.